bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala sayyidina muhammadin الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره شيخ تيجاني الشريف الأكبر ومقداره العظيم jërëjëf Seydi Mouhamed El Cheikh bismillahi alwali arrahmani alwarisul haq arrahimi xaybun nuur asalaamualeykum sang bi nee na mi ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di ziyaare kilifa yi fi teew yépp di kilifa yi fi teew yépp di ndokkeel soppe yi fi teew yépp di ndokkeel soppe yi fi teew yépp di dalal ñépp di dalal ñépp ci béréb bi ci béréb bi nga xam ni مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان nee na muy dalal ñëpp ci leer ci xaqiiqa ci yiw mawlaaya cheikh ahmada tijaani lii lépp ci shahaada ci shahaada ci xayb ci xayb ci xaqiiqa ci bast moom cheikhu tijaani la ku gis li fi teew ci malaayika ba mën a muur ventilo yi ak lumière lamp yi. mën a muur ventilo yi fi nekk ak lamp yi. ak ni ñuy escorté Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani. ak ni ñuy escorté Mawlaay Cheikh Tijani. ak bahru zaati ba mu génnee. ak bahru zaati ba mu génnee da nga xam ni Cheikh Tijani mooy waaja. waxuma ko ci neex ma waxu ko rek ci ko ci bakkanam. waaja ngay wër waaja rek ngay wër jàppal mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane lii ñu jàng lii ñu jàng léegi lan la du faatihatul kitaab la xanaa du faatihatul kitaab du istixfaar la ndax du istixfaar du salaatul fatiha la. ndax du salaatul fatiha la. du laa ilaaha illallah la. xanaa du laa ilaaha illallah la. la. du jawharatul kamal la. waxuñu sax ni. la. alquran la. dañu la. bu amul fatihatul waxul astaghfirullah waxul astaghfirullah julliwul ci yonent bi julliwul ci yonent bi xamul laa ilaha illallah xamul laa ilaha illallah dundul jawharatul kamal yàlla du accepté ruuxu boobu moo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani moo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani fexe na ba yar fexe na ba yar taalibeem ci buum boo mooy buumu waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu waaye su yàlla waxul woon sax wala tafarraqu ñun ñi dañu naan wala tafarraqu kenn du ko mas a bàyyi ku bàyyi yàlla fan nga jëm ku bàyyi yonent bi fu mu jëm bàyyi yonent bi fan nga jëm mooy ku bàyyi mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane boo ko bàyyee bàyyi nga yàlla bàyyi nga yonent bi bàyyi nga ñu baax ni soo ko jàppee jàpp nga yàlla jàpp nga yonent jàpp nga ñu baax ni lii rek moo des di leeral àdduna tariqa tijaaniya du sant du sant du aada du du moomeel lan la lan la géej la guy bal ca géej la guy ball ca xayb fekk ruux yi soxla leer fekk ruux mu ñëw di leen renforcer ci seen wàllu ngëm seen wàllu pas seen wàllu détermination ba biir illi yi tax soo demee ci xaqiqaam moo tax soo demee ci xaqiqaam da ngay dellu si waat ci benn baat. da ngay dellu si waat ci benn baat. muy baatu laa ilaha illallah. muy baatu laa ilaha illallah. yàlla ni faxlamu annahu. yàlla ni faxlamu annahu. laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. faxlamu annahu. faxlamu annahu. laa ilaha. laa ilaha. illallah. illallah. laa ilaha. laa ilaha. allahu. allahu. nuuru laahi ilallah laa ilaha illallah muy sooga yi nee na dégguñu li mu wax dafa ni laa ilaha dafa ni laa ilaha allahu nuuru laahi illallah laa ilaha illallah faw nga xam yàlla faw nga xam yàlla xam leeram xam li leeram di arrosé soo koy mën a kennal soo xamul yàlla soo xamul yàlla xamoo leeram xamoo li leeram di arrosé doo ko mën a kennal yàlla mooy yàlla huwal xayb huwal bas mooy yàlla mooy ki kenn xamul ki kenn mënul àgg ci moom le néant dans le néant waaye ki leeram di arrosé mooy huwal xayb fii shahada ñëw na fi muy muhammad waaye cey xaqiqaam kay xaqiqa mooy ahmada ibnu muhammad atijani asariful akbar du seen moroom moo tax mënoon nañ ni Cheikh Tidiane Serif mënoon nañ ni Cheikh Tidiane Serif rek ak ndax bu yëkkatee loxoom képp ku donnoon yonent bi sëgg moom Cheikh Tidiane niiteel la bu la niiteelee bu la niiteelee dootoo soxlooti leer ndax loolu mu def leer goo mënti soxla loolu dana ko desal ci sa ruux pendant des milliers et des milliers d'années te leer googu du mos a jeex mooy lii mu jox niité bi mooy lan bi mooy lan mooy salaatul fatiha. salaatul fatiha mooy lan salaatul fatiha mooy lan. mooy xaqiqa yonent bi mooy xaqiqa yonent bi. xaqiqa yonent bi mooy lan. mooy baxru zaati yi baxru zaati yi mooy lan. mooy baxrul uluhiya baxrul uluhiya mooy lan. mooy allah kun fayakun. moo tax salaatul fatiha doy na ismullahil azam ci boo xamee xaqiqa ba ndax boo ko toppee ànd ak moom di dox fa mu lay yóbbu di fa teere mooy ca allah kun fa yakun kon yaa ngi ci biir xaqiqatu ahmadiya kon yaa ngi ci biir xaqiqatu ahmadiya ndax sa sëriñ bi lay jàngal du la jàngal ci téere ci leeram la lay nàndal masalan sëriñ boobu mooy kan masalan sëriñ boobu mooy masalan sëriñ boobu moom mooy kan. ndax ku amee daara la ndax ku amee daara la. ndax ku doon baayam la ndax ku doon baayam la. ndax ku fi toog ñu rus ko la ndax ku fi toog ñu rus ko la déedéet. sëriñ boobu mooy ki nga xam sëriñ boobu mooy ki nga xam salaatul fatiha waree wàcc bi salaatul fatiha waree wàcc ruuxu yonent yi di xool salaatul fatiha ku nekk bëgg ko jot ku nekk bëgg ca séddu borom bi xamal leen ku ci attan leer bi mën nga ko yóbbul sa xeer yonent bi di présider di assister di leen seetaan ak salaatul fatiha urul azmi mina rasul yeneen yonent yi ku ca nekk jéem na gàddu leer ga yóbbul sa xeet waaye diisaayu xaqiqatu muhammad yi tax na kenn àndalu bi Cheikh Tidiane Serif ñëwee yonent bi woo ni kii ma représente ca la ni nii salaatul fatih dox ak moom ñu xam ni Cheikh Tidiane waaj waaye ñu ni bu ko yóbbee du fekk ci àdduna ku ko àttan. du fekk ci àdduna ku ko àttan. Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñëw. Mawlaay Cheikh Tijaani ñëw. dajale ruux ya nga dajale ruux ya nga xam ni. ñooñu la namm ci ñooñu la namm ci tariqa. ku ci nekk mu garanti la. mosal la leer ga. ba noppi ni la sang la. lal la jàng salaatul fatiha tëddu la gaañ. su ko garanti wul woon. mbooloom ruux bu ko jàng bis ba nga ko jàngee sala sa ruux di sofe dem ba yàgg mu explose ndax leeru yonent bi kenn àttanu ko dëgg la kon moom Mawlaay Cheikh Tijaani mënul yam ci dafa mën mënal gaa yi gaa yi mënal ñeneen ñuy mënalante mooy wérdu Tijaani yaa mën dafa mën mooy moom la ko yonent bi jox mooy moom la ko yonent bi jox mënal na gaay jël na silsila bi jox leen gaa yi mënal ñeneen ñi indi muqaddam yi ñuy mënalante ñuy joxante wérd ba loolu yëpp nag ci benn base rek mooy base nuurul alal nuur ku xam leer ku xam leer da nga nangu tariqa Mawlaay Cheikh Ahmada Tijaan ku xamul leer nag mënuloo ko nangu waaye leer du ñëpp ko mën nangu ndax du ñëpp ko mën a xam moo tax moom Mawlaay Cheikh Tijaani base fondamentale base fondamentale am base mystique am base mystique am base xaqiiqaam mooy malaanu wasifa ku ca nekk ci ñun ku ca nekk ci ñun. jox na la ca dog jox na la ca dog 30 istighfar 30 istighfar 50 salaatul fatiha 100 la ilaha illallah 12 jawharatul waaye loolu pour lan la waaye loolu pour lan la nga jëriñ sa pour nga jëriñ sa rox di jëriñaate waaye bu doon garanti rek ak ci barkeem moom la mu mën a wàcc yàlla mooy Cheikh Tijani Serif mën na garanti kuy dund mën na garanti ku dee mën na garanti ku juddoogu mën na garanti ku warul sax judd ci monde shahada mën na la garanti yàlla jox na ka garaat ba ñun xutbul maktuum rek la ñuy wax nee na ñun xutbul maktuum rek la ñuy wax ñun xatmiya rek la ñuy wax ñun kat miye rek ñun kat miye rek la ñuy wax. ñun barzaqul maktum ñun barzaqul maktum rek la ñuy wax. loolu ñuy wax yëpp loolu ñuy wax yëpp. am na sang am na sang. sang baay ban mooy xaqiqatul mooy xaqiqatul al maktum. ka nga xam ni bi yonent bi bëggee feeñ. ñu am tuuti lu ñu xàmmee ci moom. dafa jël ñaari garaat dajale ko dajale ko sof ko. xatmiya xatmiya du laal katmiya ñaari prise la ñaari prise la bii di branché nit ñi ñuy doon ay wëli bii di dox ci espace intermédiaire bu yonent yi bii di branché nit ñi di leen tabbu ñuy doon wëli muy xatmiya katmiya di dox ci espace intermédiaire bu yonent bi ak yonent yi bii di xutbatul usna bii di xutbaaniyatul kanzam ñu ni duñu laalante ndax dañu mel ni ñaari prise boo xam ni bu ci ne soo ko boole mu explosé Cheikh Tidiane Serif di wane pouvoir am ni dafa am bu ngeen fàtte ba ca digg ba di xaqiqatul maktum mooy su ma ko branché mu wane ma leeral ma génnee samay missionnaire ba àdduna sampo ba imaamal mahdi di ñëw ci àdduna Ahmadu Tijaan sangam yow wóor na ca réew ya Ahmadu Tijaan mayam yow wóor na ca réew Cheikhu Ahmadu Tijaan mayam yowon na cariya aywa saraya gayu baax ya dëgg nay dëggoon ca góoru yàlla yoon yaa dëgg nay dëggoon ca góoru yàlla yëg leen ni seex dëgg nay dëggoon ca góoru yàlla yoon yaa dëgg nay dëggoon leen ni sang bi teg nay ndëggoom ca gooru yàlla yu kawe sang bi ni la mu wax muy mayam ya wër na ca réew ya mu teg ci ni mayam wër na ca xayba ca bast ca xaysiya ca monde ya nga xam ne créature yëpp a ne masuñu judd ci monde shahada mayu Cheikh Tidiane wër na foofu yëpp romb man ko laaj ku nekk barzak moom sang bi moo ko laaj ku nekk barzak man mii moom sang bi moo ko laaj ku nekk di dund barzak ku nu denc wax woon ni kenn mënul wax ak moom moom sang bi ni amul ndax boo nee il faatihi bàmmeel ba tijjee nga ni wal xaatimi li ma sabaxa néew ba jóg ni la yow akan nga ni ko mën a diw loo tudd mun la nangam nga ni ko xam nga cheikh mu ni kuy kook nga ni ko cheikh Tidiane Serif mu ni ko am na bis romb naa jardin fii ci barsax na nga samp xeet ya di ko garde may waaj a ñëw malaayika yi puus ma ma ni waaw lu xew ñu ni ma mawlaaye cheikh Ahmada Tidiane moo fi jaaroon ci fajar dëgg fi tànkam moom la ñuy garde ndax fu mu dëgg tànk tànkam ci barza kenn dootu dégg sa tànk yàlla ngoog nitu yàlla piir mi ngi noonu moo tax mayam ya moo tax mayam warul fii rek mayam yaa nga ca xayba mayam yaa nga ca lépp loo xam ni lépp loo xam ni yàlla barkeel na ko jël na secret ba jox na ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yàlla tànn ko ci famille. yàlla tànn ko ci famille. tànn ko rek ci réputation. tànn ko rek ci réputation. tànn ko ko ko jox. tànn ko rek ci nañu ko ko jox. daf ko tànn ndax daf ko mën. cheikh daf ko mën. cheikh daf ko mën. gaa yi dañu ñëw ñoom ñëpp. gaa yi dañu ñëw ñoom ñëpp. koo ci ni ruux rek. koo ci ni ruux rek. mu ni la xuli ruuxu min amri bi koo ci ni ruux rek. mu ni la ma ca xam bëriwul. cheikh ñëw ni leen. man cheikh Tidiane maa xam ruux. xam alxuraan di leen ko tojal di toj seen rox ngeen di ko dégg leer gi di dugg ba yéen seen bopp ngeen mën jël nit toj ruuxam sol ci leeru waliyu nan la ñuy tojee ruux allah allah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

علي حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والقم لما سبق النصر بالحق وأن هادي لأسرارك المستقيم وعلى علي حق قدره ومقداره العظيم سانغي بيني ñu may ko foofu nan lañu yéegee wéeru على عين رحمة ربانية واليقظة المتحققة الهائدة بمركز القوم والمعاني والنور الأكوان المتكون العدم صاحب الحق ربانا الباقي الأصحاب المسلم الأتباع المليان لكل متعد من البر والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الغاية بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين التي ترجى الله منها أرس الحقائق عين المعارف الأقوام سرارك تام الأسقام اللهم صل وسلم على طلحة الأقب الحقيقة الأعظم إبادرك منك إليك أعطر نور المتلسم وسلم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها يا sang bi ni moo tax moom Cheikh mu ni yéen miinu leen rox c'est parce que yàlla secret ba mu ko bindee xamalu leen ko ñu ni ko waaw yow Mawlaaye Cheikh Tidiane yow naka nga def ba xam sëkkëreem mu ni ni ma def mooy yonent bee ma tànn def ma xatmiyatul maktuum jox ma xaqiqatul maktuum jox ma xatmiya jox ma xatmiya mu boole leen génne boo bo secret booboo tax mu mën a fekk ku ruuxam yàqu ku defar wul mënul defare ma xëy benn bis ci ay seconde lalloo ko malaan defar ko ba moom ci boppam mu mujj di defare ku mënul lii sa loxo ku mën loolu rek yëkkatil sa loxo Cheikh Tidiane nee na ku mën lii yëkkatil sa loxo ku mën a fekk nit koo xam ne tekkiwul lu bari nga jël ko def ko waliyu yàlla yóbbu ko xadratul ilahiya muy siège am numéro siège am di fa toog bu ñëwul kenn du fa toog nee na ku mën li yëkkatil sa loxo ay nee na ku jamono lëndëm bàkkaar bari nga fexe ba ki ànd ak yow du am mukk bàkkaar nee na ku sa loxo mu ni ko déedéet may ñu boobu noo koy defe nee na mu ni ni ma koy def mooy lal malaat الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله عظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله عظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله عظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله عظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله عظم الذي لا إله إلا هو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 mu ni seetal na seen bàkkaar ci istixfaar ba ko ca romb bàkkaar ya mu amoon istixfaar ba muy jàng per bu ca nekk ruusal na bàkkaar ya ba bàkkaar ya set wecc ba jëmm jooj amatul bàkkaar te ku amatul bàkkaar kooku la yàlla di wax ni ad'uuni astajib lakum moo tax lu mu ñaanat yàlla may ko ko laay ndeysaan cheikh ni ku mën lii cheikh ni ku mën lii yëkkatil sa loxo. mu ni ku mën a leeral mu ni ku mën a leeral. réew mu lëndëm noo koy leerale mooy ñëw ak sa martaba rek di def karaama di ko leeral waaye nga ni déedéet dama déglu yàlla mu ni allahu nuuru samawaati wal ardi nga ni samawaati de sama gaay yaa koy leeral ardi de sama gaay yaa koy leeral fii saalihin fële saalihin fii xadratul ilaahiya fii nit ñu baax ñi ñooy dox ci kaw suufam nañ koy leerale ñu ni lal leen malaan malaan yi weex na leer na ba nopp boo ko lalee ñay jàng nag lanoo jàng mooy dugg ci jaww ji di dox di activer ligne ya nga xam ni mooy ligne yiy nangu ñaani ñu ni allahuma yàlla ni nangu naa ñu ni salli mu ni nangu naa mu ni ala sayidina mu ni nangu naa leen mu ni yi mu ni nangu naa ñu ni walxaatimi mu ni nangu naa mu ni ci kan mu ni ci ko ci Muhammad mu ni Muhammad ma ngeen tudd nag kookoy nag sama sopp ndax kooku laa wax ni wa innaka la ala xuluqin azim jikko ju màgg ju ne ji teraanga moom moo ko yor moo tax bi ngeen ne sëlli mu ni ci kan ngeen ni il fatihi ngeen ni ci kan ngeen ni walxaati mu ni ci kan ngeen ni ala Muhammad mu ni mot na sëkk Go! leen wér salaatul fatiha kenn wérdul lu mel ni kii moom màggal ko lu ma saman tebul ko caaxaan sangi bi ni Cheikh Tidiane wax ni ku mën lii yëkkatil sa loxo ñu ni ko salaatul fatiha nag mu ni laaj leen ma mu ni lu tax ngeen war ma laaj. mu ni lu tax ngeen war ma laaj. ndax yéen ñëpp. ndax yéen ñëpp. yéen ñi ma contre ñëpp. yéen ñi ma contre te man Cheikh ku ma contre. man Cheikh ku ma contre. ku la tere dem jaxanam ku la tere dem jaxanam. dama lay boole kooku dama lay boole kooku. yóbbu leen yéen ñaar yéen ñaar. te malaaka du te malaaka du ma tee nawaamis du ma tee ma jàpp kenn du ma jàpp. man Cheikh. Cheikh ni man Cheikhu Tidiane kenn du ma contre. procès ngay xaar ëllëg yow. procès ngay xaar du am. yawma laa tamliku nafsun yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah duñu fa àgg maa lay gàddu sànni la te benn malaaka du la dimbali su ngeen ko weddee laaj leen ko ak taabi bu ngeen ko weddee bu ngeen ko weddee fëgg leen axtaab yi laaj leen leen laaj leen leen lu ngeen leen di laaj dugg si leen yéen yéen fi toogal yàlla ñu ni la waaw ngeen di seen pouvoir rëy ñu ni la waaw nga ni leen kuy seen sëriñ ñu gersu ko muy Cheikh yi sëriñ allahu akbar mu ni ku am mu ni ku am taalibe xutbul axtaab ku dul man Cheikh Tidiane yëkkatil sa loxo allahu akbar mu ni ko amit taalibe xutbu zaman te du man Cheikh Tidiane yëkkatil sa loxo ku am taalibe lab daal am taalibe mafatihul kunuz te du man Cheikh Tidiane yëkkatil sa loxo ndeysaan mu ni tagguma sama bopp mu ni tagguma sama bopp de dama leen di wan na ma mëne ba sama baay ci leer dugg see dugg see di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dox ak tànkam yu tedd ya mu jóge fi ñu ni leeru tànkam ya mu dëggoon iblis dana ko fay mu dugg ci faas yëngal gaa yi salaatul fatiha riir iblis daw mu commencé samp gaañ may samp muy samp di samp di samp di samp ba aaxiru zaman ñu ni dootul samp mu ni leen tay lay samp ku ñëpp di wat Cheikh nee na dama ni leen woote leen ku leen neex wax leen moom la ci barke yonent ci barke yonent bi bu dikkee di ngeen xam dikk na laay ndeysaan te bu dikkee it man Cheikh yi wane sama doole mu neex leen may doxal zaman mu naqari leen may doxal zaman nan laa koy doxalee zikru laa ilaha illallah bu tar zikru salaatul fatiha bu wóor haqiqatu muhammadiya bu wóor haqiqatu ahmadiya bu wóor ñu ni ko ndax ci alquran nga ko teg mu ni iza jaa nasrullahi wal fathu wa raayta naas yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawaaban la nee na duma ma génn mukk alquran danaa wax danaa wax ba nga réer waaye du ma wax mukk ba alquran réer ndax lu mu wax rek dalil baa ngi ci téere bi suwaat da ngay dégg téere bi wala dégguloo téere bi mu ni moo tax réew mu ma am benn nit réew ma yoreel na nu njukkal ndax na ma leen leerale àdduna bii ñu toll ku ci génne ñi ko leeral taalibe Cheikh Tidiane yi dootu ci desati de ndax taalibe Cheikh Tidiane ñaari làmp la am bii suba mu taal muy wasifa suba bii ngoon mu taal muy wasifa ngoon te lu muy jeexale delluwaat ci Mawlaay Cheikh Tidiane xam nga lu leen ko may cëru seen sang cëru seen sang boobu ñëpp bëggoon nañu yonent bi tànn leen moo tax cheikh ni ñoo ma doon dingat ba ma dikkee ak salaatul fatiha ñu dégg na mu dale ñu ni ah, ah. lii sax moom njëkku ko indi ñu ni lii kay soo demee soo demee xoolal albikri muhammadul bikri laaj ko ko wax ko lan la mu joxe ci ndigal cheikh ni juum ngeen de waaye duma leen tontu léegi dama leen tontu léegi ndax du waxu léegi bu axiru zaman jote danaa yebal ku leen tontu te du ngeen ci mën dara te kooku dana wax aliwaya na mu demee macha allah cheikh nee na muy xayb muy sahaada muy xays muy bast salaatul fatiha sama kareem la ku ca jot maa la ci nàndal macha allah amul malaaka mu am autorisation amul malaaka bu am autorisation di la ko yóbbul. ndax malaaka mu ko doon yóbbu ndax malaaka mu ko doon yóbbu boppam la koy jox. kon malaaka kon malaaka du am autorisation naan da nga koy joxi diw ndax nam ko soxla kon boppam la koy jox Cheikh ni kon ku ci jot man Cheikh Tidiane Serif la malaaka yi ba ñu ñëw léegi dañ doon forcer porte porte podium pour jàll nuur yaa iloo taxaw ni leen yam leen fii ñu taxaw te nuur yaa il taalibe Cheikh Tidiane Chérif la te lay yéeme mooy escorte yonent bi lan doon indi waaye xaal ba ñu ñëwee ak na seen forme dragon mel ak ni seen beg yi toll ñuy forcé ba ñoo forcé bëgg jàll même nuur yaa ilu moo génn ni leen yam leen fii ñoom ñëpp taxaw te nuur yaa ilu taalibe Cheikh Tidiane Chérif la allahu akbar macha allah jërëjëf sang ku gisul xayb gisoo sahaada mën nga jaaxal waaye loolu ñoom ñi loolu jaaxalu leen walaay ndeysaan ci ñooñu ngay xool xam Cheikh Tidiane mooy kan <laughs> la mu lay jàngal la mu lay jàngal mooy la mu représenté dooleem leeram te nawaamis ci xeetu malaaka la bokk waaye brigade spéciale la bu ma nee arrêté malaaka kaka defara tax muy Cheikh Tidiane Serif moo leen tarbiya moo leen tarbiya moo leen dugal ci nekk moo leen làq ci roq xay bi moo leen jox salaatul faatiha ñuy dóor di dóor ba seen dënn fees ak leer mu génn ni leen ku yore mission universelle bu leen ci associé bokk leen bu leen ci associé wul bokk leen laa ilaha illallah kon Cheikh bu mu yàggee organisé boobu du léegi moo tax moom moo tax moom du xëccoo jamono jamonooy dem di xëccoo ay xalifaam xalifaam bu ñëw rek ñu ni mooy borom jamono na muy nekkee borom jamono mooy lu jamono di dox tàggu ko ñu bare ngi wax waxi borom jamono ñu bare ngi wax waxu borom jamono xamuñu luy borom jamono xamuñu sax luy borom jamono borom jamono mooy koo xam ne borom jamono mooy koo xam ne bu xëyee suba bu xëyee suba balaa génn balaa génn univers bi univers bi jàngal ka Fatiha jàngal ka Fatiha mu dox tuuti mu dox tuuti univers bi univers bi jàngal ka salaatu jàngal ka salaatul Fatiha mu dox tuuti suuf si ni ko suuf si ni ko marhaban marhaban marhaban marhaban marhaban yaa Seydi ku mënul dégg loolu ku mënul dégg loolu moomoo jamono الماضي يا ابن جمدي يا زيد محمد sang bi la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani bi mu ganee àdduna bi mu ganee àdduna ba ba mu fiy jóge ba ba mu fiy jóge ba léegi ba léegi ay preuve rek ay preuve rek preuve am bu njëkk preuve am bu njëkk mooy bi mu ñëwee. mooy bi mu ñëwee. am na ñu fi fekkoon am na ñu fekkoon. am na ko fi jiitu woon ci am fi jiitu woon ci shahada. waaye kenn jiitu wu ko kenn jiitu wu ko nag ci xaqiqa. kenn jiitu wu ko ci xaqiqa kenn jiitu wu ko ci xaqiqa. kenn mësu ko jiitu nag ci xaqiqa. yonent bi la àndal yonent bi la àndal. yonent bee ko jiitu. ku ne ci ndeyjoor yonent bi ku ne ci ndeyjoor yonent bi. Cheikh Tidiane Serif. fan la nu wàcc fan la nu wàcc. fii la nu toog fii la nu toog. lal seen i malaan lal seen malaan wax seen i baat dellu boobu rabbi wa aadamu baynal maa i wa tiini la ilaha illallah nee nañu aadama moo njëkk dëkk ci suuf bi lool di xew cheikh di ànd ak yonent bi yonent bi branché ko wilaaya ga boobu rabbi wa aadam baynal ma watiini te la Cheikh doxal yëpp digganteem la ak yonent bi waaye mu judd ci saxaar ñu ni am na ñu fi jot a jaar ñu ni dem na sax seeti leen ñu ni jaar na fi ñu ni jaar na fële mu ni jaar jaar dox di dem kiy dox ndax mooy dox kiy wax ndax mooy wax kiy jëf ndax mooy jëf daf la koy laaj ndax xaqiiqa la ki sol yére ndax moo sol yére kiy wax ndax mooy wax kiy gis ndax mooy mooy gis kiy dégg ndax mooy dégg xaqiiqa la cey xaqiiqa bu mag xaqiiqa bu mag ñëpp dañ ni woon kiy solay sol ñëpp dañ ni woon kiy solay sol wax ay wax kiy gis ay gis kiy laqay laqe yàlla ni du dëgg yaa naaru kuuni bardan safara ni teg nekk glace mu ni wasalaaman mu changé wàññi dose bi ne mu ni woon ala Ibrahim ne mu ni woon ala Ibrahim bu ni woon ala ca keneen noonu la koy jéggale yàlla ni leen laqewul man yàlla maay laqe macha allah ñu ni jaar na ñu ni jaar na fi yonent bi seex ni yonent dana leen wax ni jaaruma fenn ñu ni nam koy waxee mu ni déglu leen ma rek ci désertu Samxon léegi da ngeen xam la yonent bi di wax ba yonent bi ñëwee la mu ko njëkk a wax anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan mooy ñett ya macha allah nee na moom ñett yéen nam koy misaale waxul sax waxu nuuraani waxu ruuxaani wala jëmmi sahaada waaye dafa ne nam koy jàppe mooy allahu huwal haqu wal haqu huwal laah macha allah loolu boo ko dajale mot ka toj ka moo jox moo lay jox allah nuuru laahi laahi laaha illal laah macha allah mooy xaqiqa Cheikh Tijaani yonent bi ni ko yonent bi ni ko sa taalibe yëpp nga nangu leen nga nangul leen ñooy samay sahaaba moo tax mu ni bàyyi leen moo tax mu ni bàyyi leen di sosal di sosal cheikh noo leen koy sosale noo koy sosale mooy ngeen nekk fii mooy ngeen nekk fii naan saxaaba diw ko ëpp ak dafa ni ci barke Cheikh la wax su gisoon moom mi ku ëpp Cheikh mu dem topp ko gisu ko moo tax mu topp Cheikh. wallaahi ndeysaan su gisoon ku ko ëpp xam-xam mu topp ko gisu ko moo tax mu topp cheikh waxul xam-xamu téere de xayb la wax xays la wax bas la wax xadratul ilaahiya la wax leer yi ci juróom-ñaari suuf ci juróom-ñaari asamaan ca jabal ya ca montagne ya ca arafat toj leer wax lan la woj leer génne la ca biir wax ni lii la Cheikh Tidiane kese moo ci mën ku dul moom da ngay jàng rek jàngul kii jàngul kii jàngul kii day jàngale kii sedduñu ko kii day balleer kii joxuñu ko kii day joxe kii tarbiyewuñ ko kii day tarbiyewaate kenn la benn maître la benn sauveur la Mawlaaya Cheikh Ahmada Tijaani sekkare buñ tudd ak ci turu yàlla bu mu jóge ak ci turu yàlla bu mu jóge ak ci xaqiqatu muhammadiya ba mu jóge Cheikh Tidiane Chérif moo détenir secret boobu moo koy branché waate moo koy séddale waate moo koy joxe waate moo koy branché waate moo koy séddale waate moo koy joxe waate moo tax mënoo nekk waliyu te xamoo Cheikh Tidiane suwaat da nga koy xam ci leeru cofeel bëgg ko sopp ko wala mu branché la koo ni branché wu ko boo demee ca moom dana ni branché na ma boo weddee branchement boo weddee branchement ba dugal xalwa laaj ko boo ko gisee lan lay jàng salaatul fatih jawharatul kamal laa ilaha illallah istighfar bu ci nekk tampon Cheikh Tidiane moo ci nekk moo tax mu ni ku mën leerale noonu zaman moo tax mu ni ku mën leerale noonu zaman yàlla yu ni toll formé nitu yàlla formé nitu yàlla yu ñu toll defar leen wax loo leen leer jàngal leen ko yëkkatil sa loxo denn loxo du jóg ba ñu ko waxee ba ñu ko waxee ca xayb benn loxo rek moo jóg ndax dañu lal malaan ndax dañu lal malaan ba ca xayb man yëguma ni am na nitu yàlla moom sang bi yëgul ni am na nitu yàlla bu ci nekkul woon ndax ka ca teewul woon ci saxaat sa ruux teew na ca ñu ni ku mën ni seex di def ni ko yonent bi defaree na sa loxo jóg toog nañu 30 minutes loxo jógul ñu toog ba yàgg benn loxo arab bu weex tàll di melax mel na jant loxo ba daal di jóg ànd ak kurus ga ñu xool ndeke loxo ba loxo manto Cheikh Tidiane la ndax kenn mënul mel ni moom bi ñuy wasifa sànq tisbaar nee na mi ngi yëngal boppam ndax na mu yëkkatee woon loxoom foofu noonu la ko yëkkateewaat fii macha allah loolu lañ cay dégg mooy day wax ni xayb sahaada la ca seen diggante moo ca nekk moom moo tax boo bëggee jàng ñëwal Seexu Tijaan jàngal bu la jàngale nga jommal képp koo xam ni jàngal nañ ku la jàngalul loo jàng-jàng téere booy wax benn salaatul faatih di gàgg gàgg nag tekkiwul wax ko ni jum ci araf déedéet gàgg mooy lan mooy wax salaatul faatih leer ga rejeté sa ruux loolooy gàkk loolu mooy gàkk waaye du wax salaatul faatih ñu ni mënoo ko mooy wax ko leer gi rejeté sa ruux bu ko rejeté dootoo nekk waliyu dootoo am njabootu waliyu dootoo am famille waliyu Cheikh Moussa Cheikh nee na ku ko contre garanti na la lenn doo nekk waliyu doo am doomu waliyu doo am famille waliyu doo am sëtu waliyu doo xaritoo ak waliyu nen Cheikh Moussa Cheikh nee na ku ma contre Cheikh nee ko contre doo nekk waliyu doo nekk waliyu doo am njabootu waliyu sa waa kër du nekk waliyu doo xaritoog waliyu doo jege waliyu waliyu du la bëgg moo tax ku koy contre moytul kooku ak képp ku kooku di àndal ndax bokk na ca waaye ku ko sopp mu ni da nga nekk waliyu sa waa kër nekk waliyu sa njaboot nekk waliyu ngay xaritoog ay waliyu cofeel ba bu dikkee yàlla moo ciy intervenir Mawlaay Cheikh Tidiane du moom dafa bëgg yàlla rek bëgg na yàlla de waaye yàlla moo ko gën a bëgg du moom dafa bëgg yonent bi rek bëgg na yonent bi de waaye yonent bi moo ko gën a bëgg bëgg yonent bi moo tax Mawlaay Cheikh jël lépp luy dundam lépp luy awraadam boo ko yonent bi yonent bi jëlaat lépp luy xaqiqam lépp luy fuy daatam bokk ko Cheikh Tidiane ni ko nag bokk ko gaañ Cheikh jël loolu bokk Mouhamad Damrawi Cheikh jël loolu bokk Aliou Arasim Cheikh jël loolu bokk Mouhamadul Ghali Cheikh jël loolu bokk Cheikh Alhaji Omar Cheikh jël loolu bokk Seydil Hadi Mali Cheikh jël loolu bokk sëriñ Babacar Cheikh jël lool bokk Baye Niass Cheikh jël lool bokk Cheikh Abba Sall Cheikh jël lool bokk Thierno Seydou Nourou ko moom Seydi Mouhamed El Cheikh jërëjëf ku barelewul du def noonu ku néewle boo bokkee kenn rek jeex na cheikh nag bare lee tax ku ne mu jox la nga ni si man la yam mu ni joxaaleel ña nga àndal nga joxe ba sonn ni ndax leer nga jeex na mu ni damay joxewaat kenn mu joxaat ña mu àndal damay jox ñi ñu jox waa Sénégal ma jox ñi ñu jox waa Chine ma jox ñi ñu jox waa Mali ma jox ñii ñu jox waa Amérique ma jox ñii ñu jox waa France ma jox ñii ñu jox waa àdduna ma jox Imaam al Mahdi mu jox leen jox malaayka yi jox waa xayb jox shahada nee na mu jël suuf lal ko lépp boole ko mu doon leer mu doon ñu leer boo xam ni mel na na ballon toob leer rekk ca ne bu mission jotee dana ko génne ca digg àdduna teg ballon lumière dóor ca ku bëgg dinga leer ku bañ dinga kenn du sang bee Seex Seydi Muhammad el Cheikh mooy sirru Taha mooy sirru Yaasin Seydi Mouhamed El Cheikh mooy sirru Taaha mooy sirru Yaasin kon nag ku bëgg dinga leer ku bañ dinga leer kenn du sang be sang bi nii lu tax jamono jooju ku bëgg leer leer naññi ku bañ leer it gënati leer leer gi moo intense sophistiqué efficace rapide baax ci rox nag baax ci xol baax ci yaram baax ci bët baax ci bakkan baax ci loxo baax ci kurus efficace am rapidité ba noppi crédible cheikh rek ko am doo juum doo jànn jànnax foo dóore rek gaañu génn doo juum doo juum boo ànd ak seex doo jànnaxe soo dóoree gaañu génn mu ne salaatul faatiha sama moomeel la man Cheikh Tidiane muy séddale na nam ko neex mu ni jawharatul kamal sama moomeel la ndax man Cheikh maa ko doose cheikh dose jawharatul kamal wàññi dose bi ba rux yi mën ko wax ñu dégg leen waaye bu ko bàyyi woon ak dose originalam ku tudd jawharatul kamal boo demee ba ci ha itati bi markazil fuhum wal maani wa nuuril akwaanil mutakawinati adami saahibil haq rab haqi haqi haqi fa la sa di yam moo wàññi dose bi moom cheikh dose bi la wàññi. dose bi la wàññi. bu bàyyi woon dose ba noonu bu bàyyi woon dose ba noonu. ku àgg ca xàq ku àgg ca xàq dootoo ko waxati. ndax allah huwal xaq wal xaq huwallah te nuuru zaati bu intervenir seeru daf koy seeyal. moo tax ba ñuy wasifa tisbaar moo tax ba ñuy wasifa tisbaar léegi. cheikh ni ma cheikh ni ko xool maag nuuru zaati xool ka nuuru zaati loolu la doon yëngal boppam. place la boo xam ne ku fa jaar leer gi laq la leer gi laq la ndax leeru uluhiyaat ba fa ne dañu ko dosé ci voltage bu mindeef attanu cheikh ni ma xool ma ak laser ya ànd ak laser ya naan ko nii ak manto manto kuy xuus géej di dox kuy kuy di dox comme kuy xuus géej comme kuy xuus géej naan nii laser ak manto yi di dox ci baxru nuuru zaati mu xam ni ku ci dugg ku dul moom ca buntu ba lala leer gi di seeyal nee na mu ni ko yaama doy sëriñ yaama doy wasiila yaama doy lépp yaama doy àdduna yaama doy allaaxira yaama doy ci xayb yaama doy ci bas yaama doy sama kurus yaama doy sama ru yaama doy sama xol yaama gënal lépp su ma la amul mu ni ko bëgguma dara su ma la amee soxlootuma dara naa la am rek naa la am yow Cheikh ndax yow ku la am ndax ku la am am na yàlla am na yonent bi am na leer yi ku la ñàkk ñàkk na yàlla ñàkk na yonent bi ñàkk na leer yi tawféex mooy la ànd ak Cheikh Tidiane Serigne loolu mooy tawféex li lay féexloo mooy leer yi leeral sa xol di leeral sa ruux di la tabb ba nga mën a tabaat ruux bu génn ci yow nag yàlla def mu doon wëli wëli nga wasifa ba noppi nga wasifa ba noppi foo dëgg sa tànk leer ga des abadan nga ànd ak moom continuer cheikh moo mën loolu moo tax mu wóolu ko moom sang bi dafa ni ko Seydi mu ni ko la bay mu ni ko jël naa sama loxo mu ni ko jël naa sama loxo nday joor teg sa mbag ndax am nga sécurité ndax am nga sécurité wala amoo sécurité nee na mu ni ko waxuma sécurité bu saxaat bu xay bu sax bu bast sax bu xay siya am naa ko ngir yow ku mu ni nii jeex na amiin fexe Cheikh nañu fexe jàpp ñu jàpp ñu amiin ndax lépp lu yëngu ndax lépp lu yëngu alamul mulki alamul mulki alamul malakot alamul malakot jabaroot jabaroot basaatul jalaal basaatul jalaal leer yay bal géeju allah nuurullahi ba benn bu ca nekk Cheikh Tidiane Seri am na ca accès mën na ca intervenir mooy joxe ordre mooy doxal ku ko ca lu ko ca neex mooy am lenn la nit dese nag lenn la nit dese nag ci axiru zaman mooy ñaan mu nangul la sa taalibe amin ndax boo nekkee taalibe ndax boo nekkee taalibe yow yaa am confiance yow yaa am confiance ci barsax boo gisee nit ñi boo gisee nit ñi di wax waxi safara di wax waxi safara xamuñu safara salaatul fatiha daf koy fay safara safara salaatul fatiha daf koy fay salaatul fatiha daf koy fay bu sa ruux jaxasoowee ak leeru salaatul fatiha jahannama du la lakk xam nga lu tax lakk nañ la ba nopp lan moo la lakk leeru salaatul fatiha lakk na sa ruux transformé ko daf ko leeru yonent bi nga ànd ak nuuraani yu bu muhammad bu jubile di jubile ba biir basaatul jalaal te yàlla xaaba xaw say ni la ko waxoon aw àddina ba mu ñëwee waaye taxawaay boobu yonent bi lépp lu nekkoon ci yaram changé na doon lumière ndeysaan lumière boobu lumière boobu booy zikr salaatul fatih moom lañ lay piqûre ba mu seeyal sa ruux yóbbu ko ci maqaamaat boobu moo indi bu étincelle ya dee daal sa dënn jóge ca baxarul xayb ngay jaayu ndax sa dënn moo tàng dëgg la ku gëm cheikh rëcc nga ku ko wóolu ku ko wóolu rëcc nga ku ko am ku ko am dem nga te kenn mënatu la baare lépp rek lépp rek moom la te li ma wax yëpp li mu wax yëpp nag xaal amu ci de preuve la ñuy wax a l'appui ku mën kay tegal preuve yi waxul preuve sahaada de dafa ni preuve xayb ak bu sahaada wali yu xam nañ xam na ñu xadratul ilaahiya wali yu boo gis way na Cheikh Tidiane xanaa mu way ko ñu dégg wala mu way ko dégguñu waaye way na Cheikh way ba mooy lan mooy nangul nag ndax ku ko nangul ku ko nangulul mënuloo dem xadara ba ñëpp ka nangul mu ni nag nangute boobu mu ni nag nangute boobu kenn koy prouvé mooy samay taalibe mu ni samay taalibe mu ni samay taalibe ñooy prouvé sama grandeur man Cheikh Tidiane mu ni moo tax bu leen ñàkk fayda bu leen kul leer bu leen font wane leen leer wane leen xaqiqa wane leen xaqiqa dëggu leen ci doxal leen ca bu leen laajee preuve exploser leen preuve ba ñëpp teg ci seen bët ñu am tiijaan mooy lan ndax tiijaan dëgg mooy leer mooy xaqiq mooy wali mooy xutb mooy axtaab mooy xaqiqatul muhammadiya ku nekk na ko xam noonu la àdduna di doxe nag di gën a leer ci barke Cheikh Tidiane barkeem ba mu ñëwee ba léegi moom ngay dégg bu àdduna dee tukki moom ngay dégg bëgg barkeem bañit barkeem bu jant bi génnee barkeem bu weer bi génnee barkeem bu ndox mi neexee barkeem bu ñu tegee ñam barkeem boo doxee barkeem boo waxee barkeem boo toogee barkeem ndax lay dundal lool mooy salaatul faatiha te bu riirul woon fii te bu riirul woon fii àdduna tukki bu yàgg. kon nañu xam Cheikh kon nañu xam Cheikh ay kan bu nu yam rek ci bu ñu yam rek ci toog nii commandant wax na ko léegi nanu jaxasoo nanu seey ci moom nanu jeex ci moom. ba dootuñu gisati leneen lu dul jëmmu Cheikh Tidiane loolu nag moo ñu yóbbu aljana mu ni la leneen la wax ci tappale wala di wax la neex ci tariqa bi du la yóbbu aljana safara la la jëmee direct la ñuy yóbbu aljana mooy gëm Cheikh fonk ko topp ko lu muy sant ñu def lu mu ñu tere ñu bàyyi suñu jullee mu nangu suñu wooree mu nangu suñu génnee azaka mu nangu suñu demee Arafat mu taw a taw a taw a taw ba taa lay ndeysaan dëgg la boo ko gëmul wala wóolu woo ko boo fa demee mu bekkoore bekkoor ba tàngaay bi rey la boo ko gëmee nag boo demee mu sedd guy boo demee mu sedd guy ndax Cheikh ci boppam mooy climatiseur ba moo tax bu tàngee moom la ñuy wax mu indi gaayam mu seral mbir yi macha allah preuve à l'appui la ñuy wax te loolu mooy xaqiqatu ahmadiya ku ko miin salaatul fatiha bee tax laa ilaha illallah istighfar lépp dellu ci ci moom kon ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi ñaanal ñëpp ci barke yonent bi barke Cheikh Tidiane lépp luy zahir di baatin di haqiqa di xayb mu jël ko tuur ko suñu rox barkeel ko sàmmuñu taxawuñu jox ñu dénk ñu sëf ñu may ñu ñu doon ay taalibeem kese nag ndax taalibeem mooy texe fi mooy texe fële mooy xaqiiqa fi mooy xaqiiqa fële ñu jàng ñu ñëpp fatiha tënk ci xaajo yëpp tëje ko salaatul fatiha ndax bu dee gàmm ñu indi woon gàmm na ni ñun nan la ñu gàmmoo yonent bi Cheikh Tidiane sunu ndeyjoor sunu càmmoñ wasifa tisba Cheikh Tidiane yonent ak seen escorte bu guddi àjjuma yonent bi Cheikh Tidiane ba ñu fi ñëwee ba léegi yonent bi Cheikh Tidiane ñun ñuy toog ak ñoom benn jotaay benn place benn toogaay ku loolu naqari fexeel noo gisee ak ñoom ñun ñii de waxuñu dañ leen bëgg rek waaye ñoom ñoonu bëgg loolu la ñuy sante yàlla ñu jàng fatiha ñu def ci haajo yëpp tëjee kook salaatul fatiha ci barkeem mu may nu ba déwén ñu toogaat fii tuddaat ko waxaat ko di ànd ak moom ba laan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 waaye tabaarakallaahu mboolem yi ñu ngi leen di ñaan ñëpp toog sax bu mu teg bi génn tabaarakallaahu di leen ko ñaan